c'est-à-dire xam nga ñi doon organiser ñu si bëri organiser tuñu ay têtes yu bees la ñooy organiser donc nit ku ne xam nga li nga capable li nga capableul nit ku ne xam nga ni kii lii la mën kii lii la mën buñ la soxlaa rek dañ la woo. dañ lay woo. est-ce que du jeunes yi bees yi génn moo leen fay yéen. non jeunes yu bees yi en fait mënuñ ñu fay parce que ñun comédie def nañ ci lu ne. ñu ngi kañ ñoo war a reculer may jeunes yi bees yi ñu dem te loolu lañ def danoo reculer may la ñu dem mais ñun ak jeunes yi bees yi bu ñu yëgaatee sur plateau ñoom dañuy xaar de. dañ dañ leen accélérer bu baax a baax dañuy xaar bu baax a baax a baax a baax a baax bu baax sax. lu tax ñu war a xaar bu baax a parce que gis nga màgget. alkaati li ñu naan alkaati du bàyyi dóor. foo fekk màgget dina am galgal goo xamante ni moom fa lay lay Youssou Ndour dafa wax benn wax bu am sens. xale yi mun nañ woy torop xale yi mun nañ woy torop ay caay-caay woy maa ko yor xale yi te mun nañ comédie torop caay-caay ku wan man soo man mii maa ko yor te télé télé laa toog di wax internet laa toog di wax ku ci wéet di nga xam ku sa papa waaw mais gisoo ni ñoom instant bii ñoom ñu ngi évoluer théâtre affaire yi ñu ngi évoluer one man show bi gars yi xale yi nu ñu ñëwee doole la ñu ñëwee. Mm. ñu ngi andi beneen facette ci spectacle yi. bu baax ñu ngi évoluer bu baax a baax a baax a baax xam nga public bu nekk ak sa temps. Mm-hmm. ak li ngay laaj léegi actuellement Sénégal dafa toll public bu vulgaire. public bu vulgaire lañu am xale yi léegi vulgarité lañ bëgg. woyu bandi te bandi googu moo ngi man poñe seen day poñe rap. doon bandi xam nga li la wax mm-hmm. yooyu la Sénégal soxla